lii bu dal dee la yaa saa su ne la ko sama borom di indi ñu ngi sant yàlla di julli ci yenn Gaston Mbengue dafa nekkoon kenn koo xam ne il laa fait développer l'arène il a fait développer le sport il a fait làmb la ji nga xam moom la ko ci yàlla xiiroon def na ci loo xamante ni kenn ko ko def yëkkati ko feeñal na ay xale tax na ay xale am ay këri kër tax na ay xale am ay créer ay société Gaston Mbengue tax na nit ñi am benn bëgg-bëgg bu mu am ci làmb c'était un homme de culture Don King dem na ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana boo mosoon a gis ku bëgg mbër yokk promoteur yokk làmb yokk mooy Gaston Mbengue liggéey na ci wax waaw loolu daal nañ ko ñaanal suñu borom yal na ko yàlla faral. mais boo Makan Mbengue. Makan Mbengue na xam ne am na ay baay ay baay ngi fi parce que Mbengue nag ñëpp war a taxaw jàppale Makan Mbengue ndax li baayam def ci làmb yaakaar naa ne bu ñu jàppalee Makan Makan dina def lu ko raw il est courageux c'est un gosse très discipliné te am nañu yaakaar ni daal mu ngi liggéey liggéey boo xam liggéey bu rafet la nan ko jàppale ndax ku jur doom deewul ku jur doom deewuloo Gaston Mbengue dem na waaye Gaston Mbengue ngi fi parce que Makan ngi fi te ñi nga xam ne ñoo daan ànd ak baayam ñi ngi fi dend ak moom yaakaar naa ne ñooñu ñëpp dinañ taxaw ci wetam pour ñu ngi lay nuyu di la ziar. élage per waaye kon man atu kon kon mbër daawul amee kër Gaston tax nañu amee kër bu jëkkoon mbër daawul fayee ko ay millions Gaston dugal na ci làmb ji ay centaine de millions loolu yëpp pour faire développer le sport et la jeunesse kon ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xalaat.

jigéen bi nga xam Thank you. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim mbokk dañuy ñaan ngir yàlla rek na ñëpp toog ku amul toog nga am foo wéeru bàyyi li ñuy taxawee ci kanam nit ñi loolu la ñaan ba pare ngeen jéggalu loolu képp ku amul chaise mën nga ñëw wéeru ci mbir bi nga bàyyi ñu ñu commencé cérémonie bi di leen ko ñaan fi ci des

un conseiller pour moi sama carrière dafa am lu bari lu mu ci joué man euh, contrat bi ma njëkk a signé jóge RTS dem Sen TV Kër Gaston Mbengue laa ko signé bi ma jotee contrat bi moom laa ko yóbbul mu càmbar ko xool ko ni ma baax na donc lépp lu may def ci àdduna dama ko ci euh, tàggu mu wax ma conseil wax ma lu may def ma soog ko def donc kooku demoon nañu ba man ak moom c'était pas des relation de travail sama doom bi nga xam ne mooy Khadija moom pratiquement Gaston mooy parrain am donc ay njabootam lu ci xew damay teew ñoo doon bokk di lekk bi mu feebaree dañ doon bokk toog di lekkandoo man ak moom c'était pour l'encourager à manger parce qu'il n'avait plus d'appétit mais bu ma ñëwee toog day góorgóorlu di jéem a lekk manaa ko père lekkal nañu lekk man ak yow ñëw naa sa benn jour mu may wan ni tane na téye sama loxo di ko vibrer pour wan ma ne non actuellement ni dellu si naa donc euh, il voulait pas que nit di xam ne mi ngi souffrir il voulait pas que nit yërëm ko loolu jàmbaar dëgg moom moo koy def dans la maladie il est resté très digne donc man c' était vraiment un plus que frère oto bu ma njëkk a dawal ci ci ci àdduna Gaston moo ma ko jox dama dañu liggéey ba saison bi jeex ci CLAF bi 2008 mu saison bi jeex mu jël caabi oto jox ma man ko Gaston lu tax nga jox ma caabi oto mu ne ma saison bi dañu ko liggéey nga contribuer ci réussite bi mu réussir te mosoo taxaw ñaan ma dërëm. ma xam ni yow li nga ma defal ci sa xol nga ko ma defal la lu ma tibbe ci sama xol Aminata Mbengue Ndiaye ni ko Malick Thiandoum defal ko lu àdduna yëpp di gis parce que dafa sonn ci yow moo tax mu jox ma oto boobu mu nekk oto bu rouge bu ma njëkk a am donc Gaston c'était plus qu'un qu'un collaborateur c'était un un frère. Ben écoutez, Gaston est, est un monument. Aujourd'hui, c'est, c'est monument qui s'effondre. Euh, il a beaucoup contribué à l'épanouissement et à l'essor de la lutte sénégalaise. Et aujourd'hui, beaucoup de champions euh, qui se font une place au soleil ont été euh, tout simplement aidés par Gaston Production. Gaston a, est une euh, usine de fabrique de champions. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui détiennent les rênes euh, de la lutte sont passés par le CLAF ou bien ont été tout simplement euh, euh, propulsés par Gaston au devant de la scène. Je veux nommer Yekini, je veux nommer Tyson, je veux nommer Bombardier, je veux nommer Modulo, Balagaï 2, euh, qui l'a beaucoup accompagné, euh, Boignan, euh, euh entre autres. Donc la liste est loin d'être exhaustive. Beaucoup de lutteurs aujourd'hui ont réussi grâce au conseil et à l'apport de Gaston. Parce qu'il n'était pas qu'un simple promoteur. Par exemple, je vous euh, donne l'exemple de, de Balagaï la, sa première maison qu'il a eue, c'est avec l'accompagnement de Gaston qui lui a dit, champion, aujourd'hui, euh, ce que tu peux faire, c'est d'abord d'avoir une maison. Et moi, je vais t'accompagner. Avec ce que je te paye, je vais t'encadrer, je vais retenir une somme pour t'acheter un terrain et pour t'accompagner à, à, construire cette maison-là. C'est la maison qui est aujourd'hui à, à, à Golf. Donc, euh, beaucoup d'autres lutteurs ont été aidés par Gaston. Mais Gaston, ce n'est pas seulement la lutte, parce que beaucoup euh, oublient que Gaston était président de la Zangiambo. Beaucoup oublient que Gaston était membre de la Fédération sénégalaise de football et c'est lui